diggante El Hadj Ndiouga ak Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Xaadimu Rasuul diggante la boo xam ni dafa rafetoon lool ñu seqoon lu bare bëri loo xam ni àddina sépp teg nañ ci seen bët jëfi El Hadj Ndiouga ci biir kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké nekk na lool kenn mënatu koo fàtte feddali kóllëre gi doxoon ci diggante waajuram wa di El Hadj Ndiouga ak waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yi moom moo tax at mu jot bu ñuy waajal màggal gi ñu jagleel Serigne Abdoul Ahad Mbacké soxna Mominatou Kébé dana ñëw fii ci kër Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou Lahad ziyaare si ko feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne moo doxoon ci diggante waajuram wa ak sëriñ Abdou Lahad Mbacke bi muy ñëw nag ci aljuma ji dëppoo woon ak le 12 mai 2023 mi ngi àndoon nag ñenn ci ñi nga xam ne ay mag lañ te nekkoon ci keppaaruk Serigne Saliou Mbacke. ñu gunge ko mu ñëw yendoo ak Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou Lahad suba ba ngoon Serigne bi nag bëgg ci moom lool ci taxawaayam ak yëg gi nga xam ne saa su ne mu ngi koy wane ci biir kër Serigne Abdou Lahad Mbacke rawatina moom Serigne siidi Mbacke moom Serigne Abdou Lahad ginnaaw bi mu fi yendoo suba ba ngoon ci la ko Serigne bi ñaanal mu daal di dellu ngir waajal màggalu Serigne Abdou Lahad Mbacke gi. صلى عليه بسلام الكريم